ay ñu leen di nuyu di leen jaar démb fële ca Dakar ci jam ñaaji am na gaynde yu jot ñëw ci noonu gaynde yi di jotee ñëw ñooñu jot nañoo aborder aborder li nga xam ne mooy seen première séance d'entraînement kon instant yi première séance d'entraînement gaynde yi jàll na ku nekk nag mi ngi réagir ak euh, daytal bi ak capacité bi nga xam ne gis nañ ko ci équipe nationale bu Sénégal ñu bari moom lañ def favori daan ñëw ci loolu gën cee développé mais laata loolu dañu wax yi ñu kan ci bile page ngeen abonné te ngeen bës cloche notification bi pour ngeen am seen vidéo au tarafi ñon ne El Hadji am solo moom El Hadji Ousseynou Diouf mi nga xam ne senegal coupe bi dañ koy war a jëli maanaam amul leen lu ci dute te muy wax sax bi wax a sonage bi nag bu neexee ñu pari yi nga xaalis ma teg xaalis incha allah coupe d'Afrique bi ñu jëm coupe d'Afrique bu senegal la ndax équipe bu Sénégal yi moo gën a luur te moom donga ah bari nañu ko ku mel ne ko yooyu après naa ah ku mel ne Modou ñaa daaj ñu vidéo spécial gars yi yëpp la ñoo daaj ñëw ndax tamit looy mënta wax wax bu leen ñuy consulter nekk africain seen équipe la ñuy poussé seen équipe réew mais bu dee ñu neutre rek di wax ci football dëgg te yàlla tax xam nañ ne Sénégal dëgg dëgg dëgg fii ci Afrique amul équipe bu fi toll doole amul équipe bu fi toll ak capacité loolu yàlla dugal kon Sénégal ñu ngi leen souhaité année bu neex a neex ngeen jël coupe bi allah.